humaine lépp loo xam ne rek euh, dossier bi lay euh, jur na ko waaye gis nañ ki nga xam ne moom mooy euh, docteur Alfousseyni Gaye moom nekkoon gynécologue bi nga xam ne moo njëkk a saytu Adji Sarr ginnaaw bañ ko indilee ne ko kii dañ ko violé moom nag docteur boobu noonu doon na subir ay menaces de mort ba daal di dellu foof nañ ci dëkkam waaye gis nañ ne jamono foofu nañ dëkkam ji Kolda gis nañ jamono ji ki nga xam ne moom mooy waa juróom bu jigéen di yaayam moom nag mooy dal di subi moom moo subir li nga xam ne moom mooy ay menaces de mort yi nga xam ne ñu ko koy def man dayaa yii xoolal yii nii yëpp maanaam ay firnde la yoo ni si ni day wane ni mhm. am na ñu nekk ci ginnaaw dossier bi te am ci intérêt mais bu fekkente ni dëgg rek lañ doon wër mhm. mais docteur bi tey jii moom moo mënoon a wax yàlla ci loxoom la ko jaarale moom moo waroon a wax lan moo ci nekk dëgg carrément tey jii mais mhm. génne dëgg kan moo am kan moo war a mën a am intérêt wu tey jii di menacer parce que gis nañ benn mhm. audio wala réquisition appel téléphonique mhm. enregistrement boo xamante ne si ni génn na ci digganteem ak Mamour Diallo mhm. ba tey ji gisaguñu Mamour Diallo fu mu génnee weddi lu ni mel que ni lii du dëgg moom muy laajte ndax docteur Alfousseyni Gaye def na li nga xam ne moom moo di oh, certificat moo ci nekk ba ko naan sax mu naan ko nañ bi mënu ko mënumaa xaar parce que dafa nga loolu dëgg ah. bu ñu gisaatee ñu toog ay Ousseynou Gueye ñu koy menacé de mort mm. mu génnee ci tali bi du toog une semaine yoo xamante ni si nii dugg ñu otaam wala lu mel ni lu mel ni am ci tey yi ñu mm-hmm. demaat doxaat ba jëmmi jamono ñu ne ñu léegi yomatuñ sax ci docteur Alfousseyni Gueye mais ñi ngi menacé de moor Ndeya ki nga xam ni moom moo di yaayam. te xoolal Ndeya la ci dossier bi nekkul ci dara boo boo jàngatee yi nga xam ni jot na fi jaar yëpp parce que ki nga xam ni moom moo di. Mola Morgan sax parce que moom c'est un activiste boo xam ne day def ay révélation tey jii mais. Mm-hmm. ab comme que mënuñoo jot ci moom dem nañu taal kër famille am tey jii docteur Alfousseyni Gaye puisque médecins yi jóg nañ parce que ne xam na ni médecins yi mhm. vraiment ñoom bu ñu jógee ñëpp xam ni jóg nañ dëgg la puisque ñoom léegi jóg nañ mhm. leer na leen nañ ni xëy na peut-être mënatuñoo jot ci moom docteur Alfousseyni Gaye génn na wax mhm. góor la c'est un homme génn na wax jël na ay matuwaayam léegi nag Euh, li naan nit bu lay wut wut jotu la bu jéem jéem jëtu la day xool gën a jege mu jaare fa te yaay ku ne xam ne a sax si xol ku ne xam ne tey jii ñi xam ne ñuy def nii peut-être yaakaar nañu bu ñu tegee pression ci yaayu docteur Alpha Sayer mën na seede mais gis nga mhm. quel que soit alpha gis nga certificat médical bi mhm. def nañ ko ba pare ndeyaa nan lañ mën a maanaam instant bi lan lañ mën a defaat ci leneen loo xamante ne si ni tey ji mën na war na mën a permettre certificat médical bi tey jii ñu modifié ci virgule lan moo tax ñuy continuer di menacer de mort nit yi dem ba ci yaayu docteur Alfousseyni Gaye tey ji di ko menacer de mort ba sax am na ay ndaw tey jii mm-hmm. yu taxawal génn kuréel pour défendre ki nga xam ne moom moo docteur Alfousseyni Gaye léegi nag mm-hmm. lii lépp soo ko jëlee maanaam day wane nii vraiment y a quelque chose dossier bi c'est politisé leer na nañ que ni am na ay nit yu nekk ci ginnaaw mbir bi ni tey jii di xamu. parce mhm. que ñoom am nañu peut-être intérêt ak boo xoolee euh, révélation yi nga xam ne tey jii sëñ euh, Baye Mbaye MC def na ko yu ci mel yu ci bare bari bu ñu demee bay teg ay 200 millions ci table pour sànq ay audio yoo xam ni tey jii yore na ko tey jii. Mhm. ça veut dire que moo tax gis nga mbir mi <laughs> encore une fois. Euh, encore une fois. Mhm. xam naa ni parce que mbir mi. gis nga ku àttewul da nga artu. dëgg la ku àttewul da nga àtte. te nañ bañ àgg ci maanaam niveau boo xamante ni si nii dañuy dikkee di àtte te yàlla xam na mhm. ni fi ñu fi ñu toll stade bi nii. Mhm. ba nit yi di woote ay résistance nationale. nañu waajal suñu bopp mbir mi du du yoon moo koy réglé mais rapport de force bi nga xam ni tey jii. Mhm. ñu ngi poussé askan bi ñu dem ci jamono jii nii. tembe ndeya gis nga loolu bis bu ñu ci bis bu ñu ci àggaatee nit ñu baree bari tey jii maanaam. dañ yaakaar ni daan ci mucc parce que mhm. ay du yem ci bopp borom dëgg la loolu daan naa ko mhm. ay du yem ci bopp borom gis nga mhm. képp ku toog di seetaan naan mbir mi sama yoon nekku ci <laughs> dalaa dal yàlla xam na ni bis dina ñëw gi bis dina dama ciy nettali benn anecdote anecdote bu ndaw rek maire bi feebar tëdd ci tëdd ci ci ci ci néeg bi euh, ñu maanaam àndu cuuraay bi saxaar si noonu maanaam mi ngi tàkk maire bi euh, au lieu que mu fay mu mu mu fay. saxaar si mais mais mais mais da da ko bàyyi noonu muy muy fàtt xaw naa sax fàtte li nga xam ne moom moo di anecdote bi. mais mais si ndax bi nga xam ne mi ngi woon ci kaw puj bi moom moo daanu ci ci li nga xam ne moom moo di. ànd bi hmm. te amaana bu ko fayoon. ci néegu ñax la nekkoon. bi ci si ndax bi daanoo xal taw taal néeg bi meer bi dee. <laughs> alors que bu ko fayoon lépp du ci fekk du ko du ko ci fekk de c'est ça maanaam euh, histoire la boo xamante ni si mhm. après ñëpp ñu doon toog daal naan seen yoon nekku ci mhm. mbaam bi doon naan sama yoon nekku ci nag mbaam après bi maire bi deewee moom lañ takk safee ko safee ko bagage yi nag bi doon naan sama yoon nekku ji moom lañ mujj rendi <laughs> dajalee ko maire eh, nag fas bi doon naan sama yoon <laughs> eh, ñi nga xam ne ñi doon naan seen yoon nekk ci ñëpp ndeyaa mm-hmm. mujj nañ seen yoon kon nekk ci kon képp koo xam ne jamono yaa ngi toog mm-hmm. naan sama yoon nekkul ci mbir mi ak nan ñu may jàmm ak dossier bii nii mm-hmm. c'est que da xam euh, dossier bi daa mujjee soo effectivement mais teewul nag sama yoon nekku <laughs> ci ak na ñu may jàmm ci mbir mi la de c'est da ngaa xamul lan moo xew jamono jii nii effectivement ñun ñi nga xam ni boobu léegi ñu topp dossier bi ndeyaat mhm. di di di di di xool fan la toll képp koo xamante ni si nii maanaam xam nga as tuut ci li nga xam mhm. ni tey jii mën na dossier bi mën na ko jural Sénégal tey jii mhm. da nga ci wax ba li nga xam ni moom moo ci dëgg ñu rétablir ko mais ci amul rek bis ko am te kebe man li ma xaw a jaaxal mooy que lu ñuy gën di dem di jàpp ne dossier bi boobu lay gën a euh, boobu lay boobu lay jeex nakate dossier bi boobu lay tàmbali. parce que ñu ngi wax sànq ne docteur Alfousseyni Gaye moom euh, menacé woon nañ ko fi de moor mu génn euh, wax bañ daal di koy ba mu daal di dem ci dëkkam ñu jàpp ne coow loolu fay na coowal yaayam daal di ñëwaat est-ce que kon mënuñoo xaar leneen ak leneen ci biir dossier bi. ak ay menaces ñu demee ba ñu ah, raje ci ñu raje capitaine voilà. médecin bi doon def certificat médical bi. tey jii nii nag ñemewul tas ñemewetul sax toog ndakaaru exercer ci borom eh, borom liggéeyukaayam dem na daw daw làqu ji dëgg la yamatu ci moom mais ñi ngi menacé de moor yaayam tey jii nii maanaam boo xoolee képp ko xam ni ci ñàkk seen bakkan posture boo xam ni amee nga ko ci dossier bi tey jii nii maanaam sa bakkan mi ngi ci xottu gerte léegi nag bu ñu ah. demee ba ak si foofu noonu tey jii maanaam mhm. ça veut dire que nous sommes tous en danger parce que bu fekkente ni dañu dem ba boo xamante ni si ni dëgg moom kenn mënatu ko génnee ku ko génnee tey jii nii yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi ci musiba tey jii. Mhm. mais euh, na kenn ku nekk jël sa ay responsabilité rek. daa mel fa la réew mi toll de léegi ku nekk rek jël say responsabilité xam ne euh, bii les dossiers euh, ku nekk rek jàppal ne ku nekk rek mën nga ci dugg ndax kenn mucc ci. boo waxee ci dossier bi wala nga am lenn loo xam ne xam nga ko ci rek jàppal ne yow mii nii nii yaa ngi en danger te nekk na ci dëkk boo xam ne ah, dañuy wax à chaque fois que ne dëkk yoon la ah, dëkk droit la mais parfois yoon ah, dafay daal di nekk côté boo xam ne sénégalais sax duñu comprendre waaye buñ jugee foofu ba léegi tamit ci wàllu politique dañuy gis gis nañ ki nga xam moom mooy Mame Mbaye Niang nekk actuel ministre du tourisme moom nag dafa daal di dafa daal di euh, porte plante ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nekk njiital Pastef euh, ci euh, rapport bi nga xam ne Ousmane Sonko wax ne ne IGE moo daal di épinglé Mame Mbaye Niang 29 milliards alors que IGF e la lapsus boobu mu def nag moo ko daal di jural yoon nag daal di koy convoqué le 2 février mais aussi tamit leen loo xam ne daal dina ci bees mooy que Mame Mbaye moom aussi en personne tamit daal dinañ koy daal dinañ koy convoqué le 2 février ndax dafa daal di luubal li nga xam ne moom mooy 29 milliards ba mu nekkee ci euh, boppu ministre de la jeunesse. <laughs> gis nga maanaam mbir bi. Mhm. maanaam comme li ma wax sànq rek fi mu ne nii maanaam. Mhm. réew mi daf fi am benn groupe d'individus bu fi nekk boo xam ni dañu am benn cible. maanaam su ko jamono ji nii benn cible la boo xamante ni si nii. dafa am mhm. ñu koy. visé di ko natt fii ak jamuñu ko mu tëdd. Mhm. maanaam du ñu bàyyi gis nga Mame Mbaye Niang bii nii mu def nii. Mhm. te tëb Sonko waxul lee mu maanaam après bi mu waxee lee dafa toog méditer ko. waaw parce que wax na ko lu yàgg. mosoo génn ko visé ko ba xam ni war na ko mën a porter plainte. tey jii mhm. parce boo xoolee plainte bi UG UGE bi nga xam ni moom la ci kii moom la ci moom la ci <laughs> moom la defaat ci li nga xam ni moom moo di. moom moo di mhm. moom moo di moom moo di plainte bi ba pare cité waat nommément li nga xam ni passage yi nga xam passage bi nga xam ni Ousmane Sonko liiroon na ko. ci boobu les conférences de de presse. bi mu doon def le 22 euh, novembre 2022 mhm. kon maanaam lii nii te boo xoolee à part UGE bi. Mhm. ñu bari génne nañ rapport boo xam ne IGF moom moo ko ko épinglé. moom moom mhm. moom Mame Mbaye Niang léegi nag ci IGE bi nga xam ne tey jii euh, Ousmane Sonko wax na ko. Mhm. moom ci la sukkandiku. parce que dafa jàpp ni dafa def li nga xam ne moom dafa diffamé quoi. dafa def diffamation maanaam. Euh, pour ci la sukkandiku pour porter plainte ki nga xam ni moom moo di Ousmane Ousmane Sonko mu doon beneen boo xamante ni si ni gàlluwaat na ci ndodd Ousmane Sonko à part dossier ki nga xam ni moom moo di euh, suite dossier suite beauté bi nga xam ni tey jii nii. Mhm. depuis deux ans. depuis deux ans ñi ngi ñi ngi ci nekk maanaam muy muy law lawla mhm. léegi nag lii nii gis nga mambay Mbaye Niang parce que man li ma gëm. Mhm. mooy que ni avant muy parce que ñoom ñëpp ci yem ah. maanaam xool na mbir mi càmbar ko xool de gauche à droit ba jàpp. gëm ni war na mën a porter plainte Ousmane Sonko ci mbir bu ni mel. mu daal di ko yóbbu ci léegi. li ci am ba des puisque convoqué nañ leen le 2 février. parce que à chaque fois gis nañ que ni Ousmane Sonko moom heure buy wuy di convocation. Mhm. Euh, li ñuy wàcce ak li ñuy déployer ci ay forces de l'ordre ñu barricade dëkk bi. tribunal sax pour nga am fa accès. du yomb trop trop. boo nekkul journaliste léegi. Mhm. encore une fois gis nga yoon te ba tey jii nag nit yi population bi ñu ngi wéy di continuer di leen surveiller maanaam. Mhm. ñu ngi leen di xool di leen bàyyi xel. gis nga bii nii. ma d'accord c'est un citoyen Mame Mbaye Niang comme ñëpp am na am na droit yoon may na ko. mën na porter plainte. mais li nga xam ni daal moom lañ ciy bañ. Mhm. comme li am ci dossier Sonko Adji Sarr bi. est-ce que du prof lañ bëgg. mooy que ni bon instant bi comme